ñaan yàlla jégal suñu mboolem bàkkaar njëkk ak mujj yi koor gi yàlla bu mu nekk suñu mujjanteel koor lépp loo xam def nañ ko ci azkar ak ci ay lépp rek lu mu doon yàlla nañ yàlla nongul te dañuy ñëw ci naafile nii sixième bi incha allah naafile tey ji dix raaka la juróomi sëlmal raaka bu nekk ginnaaw ji faatixa yaa ngi ciy jàng li nga xam ni mooy benn yaa ngi ciy jàng benn alxariatu ak juróomi ixlaas muy xul huwa allahu ahad su ko defee dañ koy baamuwaat naafila tey bi juróomi ràkk la dix ràkk la ngeen baal ma juróomi sëlmal ràkk bu nekk ginnaaw ju fatixa yaa ngi ci jàng benn alxaariatu ak juróomi ixlaas muy xul huwa allahu ahad yàlla nañu yàlla dool sutura yàlla jégal suñu borom bàkkaar te nangul suñ jaam yàlla asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh